alors un pléthore d' invité sànq ba tey yéen a ngi koy gis ci inauguration boutique bi invité yaa ngi ñëw ay invité de marque nag ñoo xamante ni liggéey la ñu gëm li euh, tekki dara ci réew mi macha allah Boucher ak Faram Tou ñoom ñaar xam nga ay doomu nday lañ ñu ñëw ci inauguration boutique Zal Shop bi macha allah mu nekk benn showroom bu doy waar. alors Boucher yow laa ñu ko jox kàddu gi ginnaaw bi mën nuyoo di la ndokkeel ci safar gi euh, maa ngi lay bàyyi nga nuyoo bokk internet. maa ngi lay fay Gallo maa ngi lay fay maa ngi bu baax a baax. di la jox sa wàccuwaay di kontaan ci yow di kontaan ci média bi yëpp di bëgg ci yéen bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal tawféex di leen ñaanal taysiir ah di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla ci safar gii ñu dugg ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabi alamin di ndokkale suñu sëriñ suñu wasil sëñ Muntaxa Bachir di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. ñu ngi la koy delloo bu baax alors ku la xam-xam la ci liggéey yaa ah ak euh, tenue bu doy waar bi moom nga ñëwee ci boutique bu Zal Shop bi alors euh, Zal Shop di euh, ubbi boutique bu toll nii yow en tant jeune boo xamante ne fan yii rek def nga réalisation bu extraordinaire ñëpp di ko rafetlu lan nga ñuy wax ci lii nga xamante ne waaw place ba laa nekkoon Zal sama xarit la sama wëllëre bu yàgg la nit ku baax la koo xam ne du ñu gis ñuy gisante du ñu gis ñuy toog waaye dañuy déggante chaque chaque chaque jour pour di waxtaan si lu bari lii bi mu koy taxawal maas mi xam ne si dara maas suñu xarit la. xam nañ ci dara bi muy commencé ba ni muy jeex te du bii kese bari na yoo xam ne ay ay ay ay ay la yoo xam ne ak ay ambition am yoo xam ne mi ko war a def incha allah fii ci dëkk bi mu nekk suñu xarit nekk suñu suñu wëllëre tey ku ne xam na ni samedi la restauration day busy day jàpp commande yaa ngi noonu foofu di taxarnaase mais dama bàyyi lépp foofu ñëw fii parce que moom moo ko jar te bu dul dara taari bi Serigne Touba boo xam ne daa bëgg Xaadimu Rasuul te lépp lu muy def Serigne Touba si ci jiital man musta wax ak man bu coupé neewul Serigne Touba laa la jàppee te noonu nag nit ku la jàppee Serigne Touba doo xam noo koy def moo dox ma ne ñuq foofu restaurant bi bàyyi sama lépp taal si moto ñëw taxaw fii dugg te li mu def nii nag moom damay dugg naa fier nag ànd ak fierté ànd ak ànd ànd ak ànd ak contentement ànd ak mbégte parce que tey safar gi mu inauguré lii rek jar na lu ne ndax fi lay jaaree di dox ba faaw kenn dootu ko cee ci àdduna kii moom ko ko bëgg a yàq moom yaa yàqu ndax bis bi ñu ko def bis bu tedd bi bis bu sell bi ba pare ay mbokk taali bi ñëw daje fi ay nitam yu baax ñëw daje fi ma ñëw bi gis fi matériel yoo xam ne nag gëj naa koo gis ndax yi am na benn euh, lave mais lave lave pied bu mu woon ne le boobu maa ngi ko mujjee gis Angleterre bi ma demee Angleterre laa ko fa gisoon lave pied boo xam ne sa tànk dañ koy laver ba pare bës ko mu nekk massage encore une fois di massage sa yaram bagage yaa ngi fii mi ngi ma ay coco jus yoo xam ni ay zel la won ma ay ay ay ay euh, parce que microbe dafa bari fii Sénégal lu garaaw laa lay wax da ngay gis fii c'est rare nga gis watkat watkat boo xam ni day rey microbe da lay wat yow ak benn lancette mën na sànni lancette bi mais rasoir bi moom la lay watee ba tey yow tëndeuse bi mën na dindi affaire bi nettoyé ko rek mais même tondeuse da lay watee léegi moom mi ngi lay indil matériel yoo xam ne boo demee Amérique moom nga fay fekk watkat daf ko war a am far force boo ko amul dañuy tëj sa place mi ngi ne la day désinfect day désinfecté kii yi euh, microbe yi lanset yeeg yëpp ak ba pare mën nga ci mën nga def tooyal ay serviette tooyal ay serviette dugal ko ci mu nekk genre micro-onde mais nekkul micro-onde buy defar lekk wala buy tàngal micro-onde rey microbe la buy maa ngi ko gis fii maa ngi gis tamit ay lampe de feu yoo xam ni xale jigéen yi fu mu nekk nii xam nañ ne àdduna bépp liñ bëgg mooy di toxaw di snap muy leer te genre làmp yi ma gis fii c'est des originales yoo xam ni wóor na ma ni jëndeewuñ ko Chine jëndeewuñ ko ci dëkk yooyu nga xam ne dañuy falsifié dañ ko jëndee ci réew yi nga xam ni tey ñoo créé loolu mu nekk gaynde boo xam ne tey dafa gëm boppam bëgg boppam créer emploi man jamono ji ku créewul emploi nawloo ma nit koo xam ne am na yàlla lu la dénk rek boo créewul emploi nawloowu ma la parce que ñun xam nañ ci dara maas mi day toog suma buntu place day waaru ci yàlla ak yonent bi Serigne Touba chaque jour nga gis dix mille personnes yu ñëw naan la dimbali ma damaa bëgg a liggéey chaque jour nga jël koo xam ne soxlawoo ko mais mën yërmande ak dimbali bi muy dimbali seen waa kër moo def nga koy jël. pare bari na ci sama place am na ñoo xam ni soxlawu ma ne man restaurant bu yem laa yor mais def naa fa vingt deux emplois pour lan dimbali doomu aadama yi jàppale doomu aadama yi. ndax koo dimbali mi ngi dimbali keneen kookoo ngay dimbali keneen keneen a ngay dimbali keneen muy dimbali dimbali dimbali loolaa chaque jour nit ñi di ko jëlee comédie mais c'est une chose bu réalité la léegi nag man li may ñaan mooy lancer encore une fois adduna bépp képp koo xam ne yor nga as tuut jarul muy bari as tuut rek la pour commencement kenn ñëwul rek na bërët zaal mi ñëwul na bërët palaasam bii tey bëtam mi ngi ci leneen ak leneen ak leneen lii lu ndaw la ci moom man mii sama restaurant bi lu ndaawaa ndaawaa ndaw la ci man kon tey commencement la rek boo ñëwee nag commencé créer deux emplois trois quatre cinq yàlla dalay dimbali di la tegal loxo ku la bëgg a yàqal sax yaa yàqu boo ci defee fulla nag def ci fayda gëm ko tey kii kon c'est à saluer mu nekk taalibi Sëñ Tuubaa nag ah ñu bokk sëriñ bi màggal gi di waaj a ñëw ah mi ngi nii bu màggal jotee lu ne lay def ci samay mbir su may safar ci lu ne lay def ci samay mbir te xaaruma ko woon ci moom kon foog ma bett ko nii foogul woon ni sax dinaa ñëw ndax mi may woo keroog ma naan ko waay samedi saa yi maa ko tey def ko noonu mais bi ma ñëwee nii léegi léegi xam na ni foogu ko woon te gis naa ni foogu ko woon mais sama xarit la nit ku baax na yàlla boole ñu mu nekk nit ku yiw di ko ñaanal nag place am bi nekk ay place place place place te xam naa ne dina ko am ndax dafa gëm boppam ndax man du ma ak ku ñàkk fay du ma ànd ak ku wayadi du ma ku gëmul boppam à part dof dof lu beeg yëpp yëpp yëpp je suis un PDG boo xam ne laa j'ai créé vingt deux emplois ba pare cag-cag yi boole ma ko ci yor naa trente cag-cag yoo xam ne ñu ngi ci mbedd mi di cag-cag ñooñu dama sax fàtte te ñooñu man maa tax ñuy dimbali seen i njaboot kon je p un PDG boo xam ni jomm naa di wax lu dul dëgg ci man te kii sama xarit la dama ko gëm te xam naa ni balaa déwén sa ren lañ ko safar balaa déwén ñu fi woowaat won ñu yeneen place yi place ndax place bi taalibi Sëñ Tuubaa la mooy li ma leen wax rek balaa déwén man mii dinaa ubbi yeneen ñaari restaurant barke Cheikhul Khadim ndax sëñ Tuubaa dina ma ko defal far force ndax sëriñ bi boo ànd ak moom te mu dëgg ci yow loolu day yemb xanaa mu bañ a nekk dëgg ci yow ñi ànd ak sëriñ bi di di wowle yëpp di dëgërle daa des nañu gën a fësal yaa ngi may dégg nañu gën a fësal sëriñ bi gën a dëgëral seen diggante ak sëriñ bi gën a yëkkati sëriñ bi boo ko defee barki Cheikhul Khadim loo bëgg danga koy am galo boo ko deful nag moom waaw si ngay am ay coono naan waa sëriñ bi yàgg na tee fekk yow li na ci xol yi la sëriñ bi di xool waaw. bala ñoo jox Fadam Tour il faut que ñu wax ci question d'actualité benn question boo xamante ne yow war nga ci wax muy Balla Gaye convocation bi amoon CNG nga xam ne daan nañu en tant que xaritu Balla ko bokk ci staff bi alors naka nga jàngatee CNG décision boobu. waaw jamono ji damaa waxut ci ay Balla Gaye ay Pape Diouf ay keneen ak keneen mbiri safar gi lañ dëgg te fii li ma fi gën a indi mooy. safara jëm ko def ak taalibe sëñ Tuubaa jëm doon. kon sanction bi métti wala. sama yoon newul ci loolu. xanaa jëmmi jamono. sama yoon newul ci ay làmb ay yoon. dañoo nekk la de boo amee la métti. sama yoon newu ci. balla bu amee lu ko métti man lay métti ndax maa ko ngemb yóbbu ko mu daan tafaati. loolu sama jamono ji taluma loolu li ma tal mooy safaru Serigne Touba Xaadim Rasul gii laa tal ci ku may laaj loolu nga may laaj kii mokk taalibe la def mbir bisam bii bisu safar ma ñëw fi teew ci safar gi. waaw sëñ bi moo ne ma ma aj ko ba lundi incha allah ndax daa am ñu may yabalal te ñooñu ñu may yabalal daa am feneen fu ñuy dem tey moo tax sëriñ bi jox ma ndigal ma aj ko ba lundi sama safar gi lundi la incha allah rabbi fële ca seeke cop bu neexee yàlla ak yonent bi di ci woo ñëpp di la ci woo nag zaal bu baax a baax pour nga teew ci incha allah rabbi merci beaucoup yow euh, yaa ànd ak sa doom day ñëw fii ci inauguration boutique Zal Shop bi. Mhm. alors sa impression par rapport ak réalisation bi nga xamante ni euh, Zal Shop def na ko ci boutique bi nga xamante ni moom la tijji fi ci Parcelles Assainies. waaw am na solo yaakaar naa ne euh, li ëpp lu ñu fi gis bi ñu félicité Zal ci lim def nii li ëpp li ñu gis ci bigit bi dañ leen gis sénégalais bu ñu ko musaan soxla dañ koy commandé muy daal di ñëw yaakaar naa ne bëri na matériel yi ma fi gis Ah, ah Europe bi lañ ko commandé di ko indi fi Sénégal toog ay 5 jours 6 jours jot mais ndaw la boo xam ne nii yaakaar naa ne sénégalais yi ñoo ko mën a jàpp rawatina jigéen ñi lii prix en la koy jaay nekk bagage yoo xam ne ni tey ji képp kuy jigéen nga yor entreprise bu ndaw buy gudd nga yor salon wala nga yor pause wala lépp looy mënti def war ngaa mën a ñëw ànd ak moom associé ak moom mu jàppale la jaay la boo xam ne nii kenn mësu la koo jaay nga dem créer sa entreprise bu ndaw ñu mel ni Sénégal moo leen soxla ñaata xale yi jigéen nga fi gis ñu sol ay lakos yu niroo nga xam ne ñii fii lañ war a daq seen wërsëg fii lañ war a nekk pour mën a gis seen bopp fii ci place bi kon lu mën a am dañ koy félicité ñaanal ko yàlla lii mu nekk suñu borom ful ko ba muy géejawaay Pikine yaraax fépp foo mënti dem ñu fekk fa place bu mel nii ndax lii bu nekkee parcelle rek te nekkul Pikine nekkut yaraax nekkut bi dakaar loolu moom pertement am lay doon ndax client yi nekk parcelle lañ defaral lii ñu nekk géejawaay dañoo war am seen bos ñu nekk yaraax dañoo war seen bos ñu nekk Canada dañoo fu nekk foo war a dem dafaa war a am ñu ngi koy ñaanal nag suñu borom defal ko ndam defal ko sutura defal ko xew li bari ci lii mu sañ waaw macha allah am na solo li ma wax Ketchup daa lay wax rek duñ taxaw ak yow koo xamante ni làmbaloog la ba ñëw fii am lu xew ci làmb ji te duñ la si laaj sanction Balla Gaye bi ban jàngat nga ci am waaw sanction Balla Gaye bi jàngat bi ma ci am mooy euh, dafa jot làmb rawatina les lutteurs ñu xeex seen indépendance ci wàllu làmb loolu ci Balla Gaye numéro 2 lay déparé ndax bokk na ci làmb ci mbër yi gën a populaire ci wàllu làmb boo newul numéro un mën nga ne numéro deux kon Balla Gaye numéro deux bu ko CNG woowee ci noot ngir noot mbër kon Balla Gaye numéro 2 war naa mën a rafetlu tewu te loolu ñu ko woo noonu Balla Gaye war du moom kese moo ko moom. Gris Bordeaux war nañ ko gis ci ginnaawam Modou loo war nañ koo gis war nañ cee gis Ama Baldé war nañ cee gis Boy Niang war nañ cee gis ñëpp ndax lu ne métti benn mbër mbër yëpp la war a métti. te Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux ak keneen ak keneen e ci yem lépp lu ñuy xeex ngir làmb ci seeni rakk yi nekk ci suuf moo tax CNG bi kenn kenn du ne daa bonde mais am na loo xam ne ni tey jii dafa jot mbër am ak xam ak yellefam ak xam ak yellefam mooy tey jii man mi nga jël suma xaalis war naa mën a xam xaalis bi nga jël ci man fan la jëm li ngay jël ci man man boo war naa mën a xam xaalis bii ngay dagg ci man mais ay centaine de millions fan la jëm te loolu nag moom la Balla Gaye di xeex moom la Gris Bordeaux di xeex moom la Tapha Tine di xeex moom la te jii gars yi bañuñu ko dagg seen xaalis waaye bëgg nañ xaalis bi ngay dagg si ñoom bu ñëwee ba soobite ñu xam ne xaalis bi nga dagg ci ñun fii nii la jëm te loolu mooy kumpa mbëri Fadam euh, ak lu mënti doon nga jàpp ni bu ko CNG warul mën a dem wuyu ji rek déglu la nañ mais convoqué yaakaar naa ne am na ñoo xam ne sax yow homme de loi da lay convoqué mu fekk la nga ki programme nga woo ko ne ko ah man dama programme woon leneen mën nga maa may ba sàngam ma ñëw def na ko ah. Balla Gaye numéro 2 bi ñu ko convoqué ci lettre lañ ko convoqué stafam ak avocat am bind nañ lettre yóbbu ko CNG wane na leen ñoom pare ñu pour ñëw ndax day am ci yeneen liggéey yu nekk ndax Balla Gaye numéro am ci yeneen contrat yu nekkoon léegi nag loolu reprendre na ko bu ko paree ak loolu dinañu woo waa CNG ne leen ba sàngam dina ñëw waaye li ma ciy lancé message mooy bisu Balla Gaye di dem ndax Balla Gaye numéro am na am na am na am na droit buy dem ànd ak avocat am buy ànd buy dem am na ànd droit homme de problème Balla Gaye am na droit wuy ji CNG ba àgg du wax du tontu bu ñëw kuy wax avocat mooy wax bu ñëw kuy tontu avocat mooy tontu kon lépp lu ci mënti am mooy nañ fi jaaree mbër yi nekk benn nañ fi jaaree pour làmb nekk benn ci lépp lu ñu mënti dugg ñu booloo nekk benn ndax bu ñu suudewoo nekk benn rek ak képp ku mënti ñëw CNG Bira mën na fay nekk keneen mën na fay nekaat waaye lépp lu ci mënti am ñoom nañu booloo ñu nekk benn dina am lu bëri bëri lu ne mën a apporter seen dund jërëjëf mais ñu ngi ñu bàyyi la nga bu sa këcëb mat nga mat nga idole ndax bi la yàlla nattoo nga génn senegal dem bitim réew da ngaa liggéey dellusiwaat ci sa réew tubaarkalla investir ci sa réew tabaarakallaahu ku ñëw yoof tubaarkalla jàkkaroo restaurant Chez Ketchup sa yaram daw nga xam ne nag lii lu war a mën a nekk la nga xam ni sën bu dynamique sën bu gëm boppam xam boppam xam ni c'est seul travail qui mooy bu Chez yow mi mën nga référence kon tey tabaarakallaahu bu yàlla dogalee Serigne Saliou Sow mii ibbi boutique am bii tey nga def déplacement ak dérangement ànd ak Fadam sa sa doomu nay ñëw di ko encourager lu war a mën a nekk la lii la réew mi bëgg Sénégal fii la toll jeunes yi na war a xalaat lan mooy jëmale réew mi kanam dem bitim réew jàng fa la loo xamante ni fa tabaarakallaa ci développement la ne loolu ngeen jël ku indi ko fi ci seen ibbi ko di ko jox doomu aadama yi loolu mooy idole loolu mooy référence yàlla leen yàlla taxaw balaa ren di déwén ngeen am place si place balaa ren di déwal ngeen am ay restaurant yi restaurant ci ndakaaru ak fépp ci Sénégal loolu lañ leen di ñaanal tabaarakallaaw di ndokkeel bu baax sëñ Saliou di ko ñaanal yàlla yàlla la yàlla aar taxaw la nga yegg naw yoon benn pak bañ laa fen ma kontaan lool nag ndax da tey day day tey quatrième jour safar mu ibbi ko nga gëm sëriñ bi bëgg sëriñ bi woote la douze safar kon moom tey ji bu dee am quatrième nga ñëw wax fii ak li nga wax ci sëriñ Touba conseillé ko mu gën a jàpp ci ku tedd ki gën a dëggan xam ne lépp sëriñ bi la sëriñ bi nag boo ko jàppee noo duggee ci moom rek noonu ngay tooyee ci moom kon na ngeen gën a dëggal gëm sëriñ bi tey liggéey tey jaamu yàlla loolu la sëriñ bi dégg la xayru kalaam maa xala wa dana jërëjëf baraka alors Sall ñu bàyyi la nga sëñ may ko nga tëj rek libéré gars parce que yi ñu nga leen di nuyu di leen jaarewaat di baal baalu ak di jégalu ñëpp ku ne xam ne jamono bi taa amul vraiment mais boo wootee ñun ñëpp ñëw ndax ku ñëwul am na lu la loo xam ne boo ko waxoon vraiment man maa la waroon fekk si sa toog leen di leen ñaanal jàmm douze mi tamit li mu wax yëpp ci moom la nekk vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla mu àgg new yoon ndax vraiment lu tax mu gën ma neex mooy yàgg nañu xamante ci liggéey bi ak lépp loo xamante ni yàlla boole nañu ci ay taalibi sëñ yoo xam ne lu dul liggéey gëmuñu man nag li ma gën a neex mu ubbi benn boutique boo xam ne ci weeru safar bi ñu ànd nekk ay euh, xale yu ndaw ndax dañu doog a door vraiment du mu créé di liggéey ma koy suivre tout le temps tamit ci live ma gis ni muy liggéey ma xam na jàmbaar ni muy def lay def ndax vraiment maa ko njëkk ubbi entreprise bi yàgg mais ni muy liggéey daf ma neex te maa ngi koy ñaanal yàlla na àgg na yoon vraiment ni muy liggéey neex na ma te jàmbaar la ndax li mu commencé bu ko àggalee incha allah président bi du kenn du mer Serigne Touba tamit du mer beneen bi ñu ci teg timit euh, sama xarit bi nga xamante si ni muy Mansour jógee ba Ndar yàlla boole ñu euh, mënuma tëj lenn te duma ko si ñambaas ndax kii euh, kii taaliba Serigne Touba la ndax dinaa leen wax tey su leen doon wax tey. dama leen di wax lu mel na kàkkatar tu kàkkatar su ma leen ko waxee du ngeen ko xam ndax kii mooy kàkkatar ci man ndax kii taalibe sëñ Babacar la taab taalibe sëñ moo euh, sëñ Mansour taalibe sëriñ Salim du mu murit xam loolu lu garaaw la day aaye safar day aaye lépp kii nag li ñuy xamale ni du lenn lu bëgg sëriñ Touba ma fekk ko musal tiset boo xam ne def na ci sëñ euh, sëñ Babacar def ci sëriñ Salim def ci sëñ mi nga xam ne moo ñu jàngal alxuraan kii nag vraiment mu nekk sunu daara di fa doxal ca ndar li nga xam ne moom rek moo ko fay doxal muy li nga xamante si ni muy